الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوسي تي في جسان فيدوبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سمعين بوكو تي الله سمعين بوكو تي مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس ميغا خمني تاي موي سونو ياكار في تي أدنى suñ ko waxee suñ yaakaar ci àddina parce que moo ñu gën a dëgëralal suñu lislaam ji nekk gën ñoo dëgëral suñu tariqa ba pare teg ñu ci yoonu lislaam nañu fii ngeen jëm nii soo leen ko jàppee te doxalee ko nii di ngeen am ëllëg li nga xam ni mooy ngër ngërmandépp ki nga xam ni mooy yàlla suñu boroom te yàlla suñu borom moo ñu teg ci kaw suuf pour ñu góor góorlu mun a tegu ci yoon yoon bu baax bi kon nu ma koy waxee saa su nekk àddina yàggul waaye àllaaxira moom du jeex kon nag képp koo xam ne rek yaa ngi ci kaw suuf lu la war mooy di jéggalu yàlla su fekkee ne mës ngaa def nga tuub dellu ci yàlla te yàlla borom yërmande la soo tuubee rek mu nangul la tuuba ma ñëw tey ci benn sujet boo xam ni Mouhamed El Amin sama doom Cheikh Mouhamed El Amin docteur Lamine Niass maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaara euh, ma ñëw ci benn sujet boo xam ne rek ñu xool nu ñuy def rek nu mu gën a gàttee ndax jot amul am na ñoo xam ne ñu ngi am pause te seen pose yi léegi mu jeex ñu daw delluwaat ci li nga xam ne mooy seen liggéey yàlla dafa am ndam goo xam ni ndam gu yàgg la muy ndam goo xam ne jëm ci kër Cheikh Ibrahima Niass ndax xam nañ ne Cheikh Ibrahima Niass rabital islamiya bi nga xam ni tey moom lañ samp ci àddina bi kenn ku ñuul kooku nga xam ni ci membre fondateur yi la kooku mooy Mawlana Cheikhul Islam Alxaaji Ibrahima Niass aussi bi ñu doon def islamique bu mag bi nga xam ne ci àddina bi yépp membre fondateur boobu kenn la mooy Mawlana Cheikh l'Islam Hadj Ibrahima Niass ci nit ku ñuul te lu ñuy wax ni ay fee yoo xam ni dañuy jàkkaarlook moom ndax foto yaa ngi fi vidéo yaa ngi fi nit ñaa ngi koy seetaan kon Cheikh Ibrahima Niass moomu tamit dafa nekk koo xam ne doomu Sénégal la Sénégal tey ndam su amee ci doomam yaakaar naa ne ñun sénégalais yi ñoo ko war a tiitaroo ñoo ko war a profitoo jël ko def ko ci suñu xol yi mun naa am nag bon ci sama gis-gis xaw ma yeneen gis-gis waaye vraiment ku mel ni Cheikh Ibrahima Niass mu am alxalifaam tey toog fii xalifa boobu tey damay ciy ñëw xalifa boobu mooy kan man bamay nek ndaw ci la koy bëgg ci la koy fon ci lay gis melo jikko yu nek ci mom muy kan muy cheikh mohammed al Mahi ibrahim anas koku tay mbollem ci tariqa tijan tay ci àddina bi moy sen bay moy sen khalifa moy sen bay moy sen khalifa ci àddina bi la wax ndax képp nit soo xamee dëgg te topp ci dëgg xam liy dëgg mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass amul sikk ak sikk ak weerante ne àddina bi yépp tey foo dem di nga fa fekk doomu réew moomu ay millions yu millions yu nit ñu nekk ay taalibe baay te lu waral ñu nekk taalibe baay dañoo nekk ay taalibe tijaan yoo xam ni ñu ngi jëlee wérdu tijaan ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass kon ñooñu tey ñii dem ba nga xam ne tey Cheikh Ibrahima Niass moo leen tuubal ci àddina bi tey damay wax ne Gàmbi gii nga xam ne moo ñu gën a jege soo fa demee doomu gàmbi yi nga fay fekk su fekkee ne seen habitat xawma ñaata la 4 million wala 5 millions soo demoon ba ci génne taalibe bàyyi soo ci génnee 3 million 4 million dara dootu ci fa des te loolu liggéeyu شيخ Cheikh Ibrahim la te lu may wax ni ay fee la ñoom ñu ngi foofu ñu ngi fii ñu ngi dund soo leen laajoon yóbbu leen ay micro-trottoir ñu wax leen ko nga demati Mauritanie waxuñ ko waxu nopp la naar bu weex du topp kenn ku dul kum am yaakaar ci yow ndax ay borom xam-xam la ay shurava lañ ay ulama lañ loolu yàlla ñoom la ko may nga demati fi nga xam ne Mali ay shurava ñoo fa nekk ay borom xam-xam waye soo fa demee tamit non la nga dem Burkina dem Niger Nigeria dem ba Libi bo fa suñ mam jogé nga xamné moy Rida mais so demé ba ci Arabie Saoudi sax non nga ko fay féké nga dem ci Asie non nga ko fay féké ba Chine gi nga xamni non nga ko fay féké ci kër Cheikh ibrahim Niass yàlla may ñu nak ñu am al khalifa bo xamni Cheikh mohammed al Mahi ibrahim Niass yàlla may ñu ci mom mu nek koo xam ni kàngam la ci biir Sénégal ñu déglu bu baax lu ma leen wax Cheikh Mouhamad El Mahi kàngam la man toujours su ma ak moom nii yàlla daf ma may damay toog di waxtaan ak moom dañuy taxtaan di ree ndeysaan jàppul àddina bëggul àddina xamul luy àddina yàlla lim ko may ba muy nekk ci zahir di toog lépp loo ko mës a fekk mu ngi teg rajoom mu ngi téye livre jàng rek la xam ba léegi jàng ak jàngale moom la Cheikh Mouhamed El xam dañ doon toog nii nga gis ko waxtaanu xam-xam yàlla may ñu nag kooku boroom xam-xam boobu tey yàlla may ko tey mu toogee toogaayu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass te ba mu toogee toogaayu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass moom yëgul ci jëmmam ne dafa toog ci toogaayu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass dafa toog en tant que koo xam ne doomu Cheikh Ibrahim Niass la waaye koo xam ne société bi moo ko soxla mu nekk borom xam-xam mu war a doxal société bi kooku rek ndam la ci Sénégal wax ma fii kan moo osé taxaw ci place yu gën a mag yi ci jamono jii ci ñun ñii ñëpp ay doomu sëriñ lañ nga osé دلك عرب الفصحى تخو Pourtant, Medina yàgg nañ ci Cheikh Oustaz Barham Diop yàgg na ci keneen ak keneen yàgg na ci al imam Hassan yaa ngi dégg keneen ak keneen waaye Cheikh Mouhamed al Mahi yàlla daf ko may dafa maanaam luqa bi ak wax wax wax bu mu wax rek wax bu mu wax rek so ubbe kamino alquran bi dang ko fay fek parce que toujours mu ngi waxtaan luy jëmale Sénégal ci kanam mu ngi waxtaan luy jëmale àddina bi ci kanam mu ngi waxtaan li nga xamne moy dello jeunesse bi ci euh sen ëllëg suba nga xamne nan lañuy mëna taxawé mu ngi xol tamit li defar àddina bi nan la mëna taxawé kon koku dom bobu suko Sénégal amé dañ ko wara fonku dañ koo war a jël teg ko ci kaw dañ koo war a tiitaru tiitaroo sakantumaag nag li ñuy wax ne bàyyi la solution bàyyi mooy solution yi àddina bi loolu du sikk sàkk koo xam ne lu ñuy sikk sàkk la déedéet bàyyi mooy solution àddina bi loolu mooy dëgg xam nga lu tax mu nekk solution àddina bi parce que foo dem ci àddina bi moom Mawlaana Cheikh Ibrahim Niass mii nga fay fekk te lu wax dañ ko ci topp kon solution boobu tey Serigne Mamoun Niass demoon na Darfour ci jamono ju muy gën a yëngatu ba mu demee Darfour tey président Abdoulaye Wade suñu maam yàlla na ko yàlla yokk ay fanam moo ko yónni woon te boobu ñu ngi ci digg xeex bi mais ba mu demee ba àgg foofu dafa beesawaar li nga xam ne mooy tension ba fa nekkoon te boobu ñun contingent yi nga xam ne mooy militaires yi am na ci ñoo xam ne ci lañ jëlee sax nekk ay taaliba tiijaan te coow li mu ngi fii ñooñu nañ génne wane seen bopp su fekkee ne lu may wax du dëgg ndax suñ doon dem bañ nañ ko contigent bi nga xam ne dañ doon jógee fii ci Sénégal dañ nan leen soo leen di dem takk leen ay njëllu baay wala ngeen sol ay t-shirtu baay parce que Darfour ña fa nekkoon ci rébellion bi suñu gisee ne sénégalais nga ñu gisee Cheikh Ibrahima Niass rek ñoom ñoo lay rawale kon bàyyi foofu la solution bàyyi nga fa ñu waxante dëgg bàyyi nga fa ñu turnewaat ci biir loolu nga xool ne Darfour mu ngi nekk vingt cinq millions habitants ci région région la boo xam ne vingt cinq millions ñoo fay dundee vingt cinq millions yëpp mun naa laa wax na la vingt cinq millions yëpp taalibe Baay mun naa laa wax loolu xam nga danañuy wax Nigéria ay millions millions non non Burkina Faso sax ay millions la Niger ay millions la feneen ay millions la loolu yàlla moo ko defal Mawlana Cheikh Ibrahim yàlla mooy maye. yàlla mooy maye waa léegi ñu am ku mel ni borom xam-xam boobu nga xam ne tey doxeewut ne xalifatu Mawlana Cheikh Ibrahim waaye day doxee li nga xam ne tey. mooy doxal àddina bi mooy jël àddina bi yeete àddina bi yee leen ne leen ci lii ngeen war a def yàlla defal ko mu dem fi nga xam ne mooy Daafuur muy Cheikh Mouhamadul Mahi yàlla defal ko ndam loolu tey ñoo xam ne ñu ngi geer ay ati at yoo xam ni am na suñu doom yoo xam ne juddooguñ te boobu ñun ñu ngi nekk ay xale tey mu dem ba nga xam ni prisonniers politiques yooyu nekkoon ñu jàpp leen ñu dem ba bàyyi leen ñu dem ba jël ay chef boole leen ñu nekk ñoom ñëpp nekk ci jàmm loolu yëpp à cause du cheikh al khalifa cheikh mohammed al Mahi wa ñu ne ñun Sénégal lañ dëkk ñu ne Sénégal lañ dëkk bu leen ñu bële fee bañ commencé dégg na talibé bàyyi ñi ngi taxaw di kaas di commencé nan télé yi télé yi dañoo waroon jóg di def kon nu ñuy def parce que ay journaliste ngeen daf leen a war a jaral ngeen jël ay jet privé dem fekk ji li nga xam ne moo am Darfour parce que nit ñi nuñ koy defee su guerre amee su dara amee lu baax wala nangam daf leen di jaral ngeen jël yónnee seen ay agent yoo xam ne dañuy dem di ko couvrir di dem di ko couvrir waaye lii nga xam ne tey moo gën a rëy lu jara ñu couvrir ko ay jullit yoo xam ne tey dañ ñun nee nañ presque 95% lan 95% ci ay musulmans yo xamné fi lañ dëkk ci Sénégal fee tamit nek ñom ñëpp ay julit yu rayanté seen biir ben ki nga xamné al khalifa Cheikh mohammed al Mahi mom kenn jox kenn daggalu ko billet kenn fayalu ko dara mu jóg ak boppam dem seeti waxtaan ak ñoom taalibe yi far génnee fa affaire boobu neex kon est-ce que jarutoon ñun journaliste yi fi nekk ñu dem couvrir loolu mu jaral leen ko ak Sénégal gi kenn lañ ci gis mooy xalaat TV man du mën a TFM du mën a ñii loolu bëlëfe la taxaw nii def ben science bo xam 2 minutes wala nangam parce que bañ nañ ku leen sikk non arrêtez arrêtez il faut ngeen arrêter munoo len ñoo tuutil te tuutiwuñ kër Cheikh Ibrahima touti wuñ te munoo len toutil parce que yalla moy yëkkati te yalla mo ñuy yëkkati ba faw di ñu tek ci kaw ñu kum ak kum neex ak kum naqari waaye dinaa ci joxañ tamit baaraama tuuma ci li nga xam ne tey mooy gouvernement Sénégal parce que ndam lii sa ndam la ndam lii gouvernement Sénégal sa ndam la du ma tudd na kenn tur du ma ne kii du ma ne kaa du ma ne waaye li nga xam ne tey mooy gouvernement Sénégal ndam lii ñu am nii Cheikh Mouhamed El Mahi liggéey ko ndamu Sénégal la parce que fu ñu ko tuddee danañ wane benn sénégali e cheikhu sénégal yi ngay dégg moom ngay dégg sëriñu sénégal bi Baay Ñas nekk sénégalais juddoo fii Taïba Ñaseen jànge sénégal ba amee fi xam-xam yàlla may ko kon nu ma koy waxee toujours Baay ci kaw ga la juddoo fu ñuy wax Taïba Ñaseen gis nga fam juddoo yàlla daf koo barkeel suuf soosu loo fa ji dafay dafay dafay kii bañ nañ ko ba sax madame Jabro Ablaye Wade abaloon nañ ko fa ci suñu hectare yooyu mu fay bay mu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu tedd la Taïba Niassène soo demee fekk fa xale yi ndaw yu fa nekk yàlla daf leen a ubbil xéewal ndax la fa Cheikh Ibrahima Niass judd mu jugee foofu dem toppaat baayam ba Koosi ba nu muy ñëwee lew na ba nu muy sancee Mérina kooku Mawlaana Cheikh Ibrahim moomu jàngee fii musta jàngee fenn ci buntu kër baayam la jàngee baayam a ko jàngal mu am xam-xam ci baayam ba mel nii mu mel nii tey mu génn ci àddina bi xoola génn nu mu jafee woon génn ci àddina bi ñu laaj ko lan ngay dem mu ne na damay dem doxi xool lislaam dëng-dëng yu mu am ma jéem koo jubbanti te noonu la ko defee tey amut fooy dem te doo tiitaroo Cheikh Ibrahima Niass ci àddina bi waa léegi gouvernement yow nga gis loolu loolu nga gis ko en tant yow yaay suñu njiit en tant que président de la république monsieur Macky Sall nu ngay bindee sa Twitter di ci teg di ci wax nangam mais waroon ngaa mën a féliciter kii nga xam ne mooy Cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahima Niass parce que lii mu def nii sa ndam la yow du namu ma sàmba du namu ma demba du namoo keneen sa ndam la yow ndax yow yaay suñu baay fu mu nekk nii ñun ñëpp en tant que président Macky Sall yaay suñu baay parce que yow lañ yëkkati jox la réew mi réew mi su doxee yow la tàccu su doxul yow lañuy ñuy xalab kon réew mi dox na ci dox boo xam ne ci wàllu diplomatie waaye dox na ci wàll diine lislaam boo xam ne tey ci kër Mawlana Cheikh Ibrahim Niass la jóge ana lan nga ci wax ana lan nga ci def na nga am ngor nag ba jour bu ñuy wàcc aéroport bu ñu sonal di ñu indil ay quelque nit di indi noonu di wane seen baaxantal gistal yi ñun gëmuñ loolu gis nga ñun kër Cheikh Ibrahima Niass ku ñu xeex ak ku ñu xeexut ñun gisuñ la parce que ñun li ñuy doxal Cheikh Ibrahima Niass mooy doxal suñu affaire ndax bañ juddoo ba léegi musuñoo gis loo xam ne taxaw nañ ne nguur moo ko dimbalee këral Cheikh Ibrahima Niass lii nguur moo ko defaral kër Cheikh Ibrahima Niass amut te musta am kon maanaam xaaruñ leen suñuy wàcc aéroport di teertu suñ kilifa googu nanga xam ne xaaruñ leen ci ngeen di ñëw di ñu jéem indil ay maslaa yoo xam ne gëmoo leen ko xam nga lan laa gëmoon nga taxaw fële def sa discours fàttali ko xoolal Daafour nu mu rëyee lu mel noonu ku boole ay président boole ay ay ay ñëpp tegaat seen ku nekk Mawlana Cheikh Mahi Ibrahima borom xam-xam bu borom ko mu am ko mais Cheikh Mahi Cheikh Mahi Ibrahima Niass ñu ngi lay wax jërëjëf te xaaroo ci lu dul yàlla te yàlla rek moo la ciy fay xam nga la toogoon naa benn bés ñu toog nga nettalil ma nga ma dof ba doon toog naan yàlla na ñëpp dee ma deseeg bàyyi bàyyi na ko waa su ma la deseeg ma yow fii ban njëriñ la waaye ñëpp nañ dee ma deseeg yow Cheikh Mouhamed El te yàlla boo dee yow loolu lañ lay ñaanal yàlla parce que tiitar nga damay wax ne yow bis bu la fi yàlla jëlee yàlla na yéex xam-xam day dem parce que dafa am nit ñoo xam ni yàlla daf leen a may xam-xam may leen baatin may leen lépp ñu ëmb ko téye ko te yëguñ ko nee naa la nit koo xam ne la tey soo romboon bunt këram doo mën a xàmmee ne ndax kii mooy xalifa bi changé wul ci dara ñam doon toog ak lay toog ak ñam doon nekk ak lay nekk ak buggul ku ko tëj buggul soo koy jéem a téye nii sax di ko yëga ci otom del xool geste vidéo yi del xool geste vidéo yi soo ko jéemee téye nii sax di ko dimbale gis nga daf lay pousse ne la mais bàyyi ma mun naa dox ak sama bopp bëggul àddina xamul àddina yàlla la bëgg te ci yàlla lay dox kooku mooy Cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahima Niass waaye dañ lay wax ngàcca ngaalaama waaye man damay tourné waat ci taalibe bàyyi xam nga benn bés maa ngi leen koy wax yéen taalibe bàyyi yéen taalibe bàyyi yéen laay wax ak am leen fulla ak fayda te booloo nekk benn gis nga fii ak booloowuñ bàyyi suñu intérêt bopp yi kum neex nag muqaddam nga soo duggee sa kër doxalal nu la neexee defal nu la neexee loolu sa kër la waaye intérêt bi ñu bokk mooy Mawlana Cheikh Ibrahim nañ fexe ba su bàyyi ooteetee ñun ñëpp nañ jóg fàtte suñu bopp demal ngir Cheikh Ibrahima Niass parce que ñun ñii ñëpp muqaddam yi muy benn ci man muy ku mënti doon bàyyi teral na la. yaa ngi teru teru ci bàyyi goo xam ni doomu Baay Ñas yi sax amuñ ko yéen a ngi teru ci teerwu ci keppaaru Baye Niass di ci am lu nekk loo xam ne wóor na leen ne doomu Cheikh Ibrahim Niass yi yëngatuwuñ ci loolu te yàllaa leen koy defal ana lan ngeen di fay bàyyi yéen ana lan ngeen di defal Baye wax leen moo tax nag il faut jot na ngeen gis réew mi nuñ ñu taxawee ak nu ñu fàttee il faut ñu delluwaat ñun ci suñu bopp il faut que ñu delluwaat ci suñu bopp ñu waxtaan suñu bopp boole suñu bopp billahi wallahi tallahi kon nu ma koy waxee gis nga kër Cheikh Ibrahima Niass suñ booloo waxuma la dara waaye Sénégal mën nañoo tabax sax réew réew réew mën nañ koo tabax mën nañoo tabax réew nan la ñuy tabaxee réew ñaata millions yi taalibe Baye Niass moo fi ne mais nan lañ koy organiser ba mën a jël benn dërëm bu nekk taxawal lu rëy nan lañ koy organiser ak yan xalaat la ak yan xam-xam la il faut ñu nangu benn affaire ñii dañuy dem ñii di toog ñuy dem nag ñu jimbale leen ñu dem ñu di ñuy dem mooy ñu am xalaat am xalaatu bopp am xalaatu bopp xam am vision bu gudd xam lan lañ war a taxawal pour def ko mu bañ a nekk seen intérêt bopp il faut loolu ñu def ko ci suñu xel yi ñun taalibe bàyyi ndax ëllëg suñ demee jàkkaarloog Cheikh Ibrahima Niass waruñoo rus nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel na am solo li may wax nii xawma ku koy dégg ak ku ko du dégg mais maa ngi koy jooytu bët bu set suñ ñu yabee rek suñu doxalin la beneen bi tamit damay ñëw duma dal kenn ansaaru diin lay dal parce que nëbbatuwuma man kër Baye ma intéressé Baye Niass moo ma intéressé luy doxal Baye Niass moo ma intéressé damay wax ne li ñu gën a tardeel bokk na ci waxuma kenn nag waaye ansaaru diin parce que tey yow yaay buntu xadara bi yow yaay buntu financement xadara bi yow yaay buntu xalaat yi nga xam ne tey war nga ko mën a doxal tey jii ansaaru diin waroon na koo fekk tey bay sëriñ bi di dem mboolem média kon ñu koy ñeneen ñi di defee ñu jël suñu xaalisu bopp fay ko ñu topp ko ñu koy wane waaw fu Al Jazeera demee bay wane Cheikh Mouhamad El Mahi ci liggéeyam bu rafet boobu ana ansaaru diin tey ñu waroon a mën a yëkkati benn débloqué quatre-vingts millions cent millions jox ko média yi jël ba pare jëndaale suñu matériel am nañ fi ñoo xam ne ñoon wërsëg a fi sàll média a fi yaa ngi dégg Kossy TV mu ngi fi ay boy yu xarañ ngeen am ay matériel yoo xam ne dañuy dem suñ paree ñu ñëw ñu def montage am nañ yëpp man mii am naa sama site boobu am nañ ay boy yoo xam ne ay taaliba baay ñu xarañ ñoo xam ne suñ ñëwee mun nañ ko monter nuñ neexee ñu dem fay fay fay la ñu koy teg ci télé bi chaque jour fu sëriñ bi dem ñu teg ko mais ana Ansaarud Din tey lan la fi liggéey joxoñ leen ma lenn lu mën a taxaw lu ñu lii am ansaaru diin moo ko ñafe ba def ko wala ansaaru diin moo ko def ba def ko mais buñ naxante buñ naxante keroog ba may xëccoo ansaaru diin dañoo yaakaaroon na ay caaxaan moomu fi indi déedéet dama indi programme bu leer ñëw teg ko parce que dama bëgg fii ñu nekkee ñu jugee fi nekkaat ci yeneen étape sama sama li ma leen indil ci programme mooy man maa pare woon a jël benn trois étages quatre étages di ko liggéeyanti pour fay ko jël mbooleem taalibe bàyyi jànge université defuñ dara ma jël leen dugal leen foofu képp kuy taalibe bàyyi te nga am kër fii ci ndakaaru ma ne la damay jël ubbi agence immobilière jël la yow da taalibe bàyyi boobu sa kër googu ma jël ko mu nekk ci man may fay ma koy fay moom ñu ci am dara pour am ansaaru diin foofu nekk chaise u ansaaru diin ma tourné waat ne uti sama agrément assurance képp kuy taaliba bàyyi taxi booy dawal oto booy dawal assurance nga koy daggee ci man pour ansaaru diin ba pare war a dem gisiwaat muqaddamu bàyyi yépp ak taalibe yi demal sama bopp Chine jënd bâche yi jënd matériel yi jënd lépp indi ko pour am ansaaru diin mais loolu suñ ko doon def di ubbi bureau di ñemee jël risque ndax liggéey yombul mais da jël risque yi pour nga dem nu konoon tey passé nañ fii kon nañ leen fexee nuñ toggaatee ñun taalibe bàyyi nañ leen fexe nuñ toggaatee xool gis yàlla lu ñu may xoolal fële Daafour laa la wax vingt cinq million habitants waxuma la nag yeneen région yi te soo demee foofu yépp ay taalibe bàyyi lañ nga dem Nigeria nga dem feneen nga dem feneen waa léegi nan lañuy def ba mën a exploité liggéey boobu ba mën koo teg ci yoon nan la ñuy def nan lañuy def ba mën a jël liggéey boobu exploité ko teg ko ci yoon il jot na waaye maa ngi wax ne duma guddal ndax temps amul waaye ñu ngi sant suñu sëriñ Mawlaaye Cheikh Mouhamad al Maahi te ñun ñépp taalibe bàyyi dañ ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla may ko wér yàlla gën koo dëgëral kàttanal ko bàyyi ko ci suñ kanam ba ñun taalibe bàyyi yépp ñu dee mu des fi parce que ndam la ci ñun ndam la ci ñun alxalifa boo xam ne boroom xam-xam la ndam la ci ñun te bàyyi da doon wax ne léppam rek xam-xam la kon suñu yàlla mayee ñu am xalifa bu mel ni moom muy Cheikh Mouhamed El nekk boroom xam-xam nekk ku oyof nekk ku baax nañ ñaan yàlla ñun ñépp ñu dee te bàyyi ko fi man de loolu lay ñaan su fekkoon ne yàlla day jël sama ruux gii war a jël ruuxam gi yàlla na yàlla jël sama ruux gi jox ko ko ndax mom mu dess fi moy ndamu Cheikh Ibrahima Niass mu dess fi moy ndamu yàlla mu dess fi moy ndamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon serigne bi encore une fois ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sante ñu ngi lay ñaanal yàlla ñu ngi lay won na la ñi ngi ci sa gannaaw di contane bu baax ci li nga def mu feñ ak ñu bañ ko feñal ci Sénégal waye feñ na ci àddina bi te fuñ taxaw rek waa kër Mawlana Cheikh Ibrahim danañ siggi loolu moom yàlla Cheikh Ibrahima Niass la ko may ci àddina bi te terewul nag ku nekk am nga sa may waaye nag ki yàlla may tamit nañ ko nangul mayam parce que lii mu def nii du lu ndaw kon Cheikh Mouhamed El Mahi jërëjëf encore une fois jërëjëf jërëjëf yàlla nga fi yàgg lool te wér beneen bi nag mooy ku am lu rëy dangeen di def lu rëy maa ngi wax taaliba Baay Ñas yi foo leen mënti nekk ki yor sareet ku yor pedaal ku yor moto ku yor kii ku mën tamit ci yéen taaliba Baay yi nga xam ni nëbbatuwoo leen dangeen a wane ni ñun ay taalibe bàyyi lañ bàyyi la ñuy liggéeyal ku ci yor sareet jëlal ci mbindeef yi ñoo ci mën a jël ñu ñëw aéroport suñ ko mënee gunge ba na Baye sax mu jaral ñu jour boobu su fekkee ne dañuy dañ doon liggéey di gagné milliard nañ jël milliard boobu sànni ko ca safara te buñ ko xool xool ndam lii nga xam ne Cheikh Ibrahima Niass tey moom la def maanaam képp kuy taaliba bàyyi na nga fexe ne heure bi nga xam ne sëriñ bi suba dina ca ñëw na nga fexe toog mu jaral la fajar nga jënd sa mburu te sa ndox wala mu jaral la nga woor ko sax toog di xaar sëriñ bi topp sëriñ bi ñu gunge ko ba fa mu bëgg a dem ba yegg fa nañ ko ko gunge ci displine ak ci yaru ak ci melo bu rafet te nañ ko organiser nañ ko organiser maa ngi wax ne mboole muqaddam yu fi nekk maa ngi wax sang njaay di wax Cheikh Abdou Ndaw di wax bàyyi la solution Cheikh Abdou Aziz maa ngi wax tamit muqaddam yi nga xam ne mooy Cheikh Jang saala bàyyi Dramé yaa ngi dégg Baye Modou Gueye ca Géejawaay ahlul fayda yaa ngi dégg mbooleem koo xam ne tudduma la rek dafa fekk njaay ca ville Dakar yaa ngi dégg maa ngi tudd ñëpp ahlul xayri ahlul cheikhul xayri maa ngi leen di tudd ñoom ñëpp yaa ngi dégg bàyyiwuñ kenn ñoom ñooñu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi wane ne ci bàyyi lañ bokk di wane ne ñu ngi xidmaal bàyyi maa ngi leen di ñaan nañ bàyyi seen lépp tañ waxtaan ak taalibe yi te génne seeni moyen jël ay kaar jëlal ko ay nit ñu dem ay rapport dem teertu ci sëriñ bi maa ngi wax nag shababul fayda képp koo xam ne ci shababul fayda nga bokk na nga solu te dem taxaw ñu dimbale sëriñ bi ba fu mën na yegg mu yegg fa incha allah lii daal laa amoon pour wax ko di ko waxaat di wax ne taalibe bàyyi jot na jot na ñu waxtaan seet li ñu am lan la seet ñun luñ koy doxalee suñu bopp waruñoo xaar kenn ndax ñun waruñoo soxla gouvernement gouvernement moo ñu war a soxla te li ma leen di wax nii pare naa man ci sama bopp maa ngi woon ci liggéey bi te bëgg naa liggéey boobu ñu continuer ko ñun ñi nga xam ne mooy taalibe Baay maa ngi ñaanal taalibe Baay yépp yàlla boole suñ xol yi te def ñu benn ñu jàppoo bëggante te nekk benn ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ziyaarawaat bu baax alxalifa cheikh Mouhamad al Mahi ndam lu rëy lii nga am def ko di gërëmaat xalaat TV maa ngi koy gërëmaat bu baax waa xalaat TV nga xam ne chaque jour dama leen di seetaan waaye gis nga documentaire bu mu ci def lu am solo la yeneen télé nag seen bëlëfe yi man gërëm mu ma leen sandoo parce que li ngeen di def gëmoo leen ko gëmoo leen ko muy muy TFM 2STV ak télé bu mënti doon li ngeen di def gëmoo leen ko soo leen ko gëmoon daf leen di jaral ngeen di topp rapportage bi di ko def ndax ndam gënta rëy lii ci kaw àddina Nelson Junior bëgg na ko te munu koo am kër Cheikh Ibrahima Niass ñëw def ko kon suñ ko defee ñun loolu dañ ci sant léegi nag ndaw yi nga xam ne nag mooy ñi nga xam ne jàng nañ affaire visuel télé affaire yooyu ndaw yooyu yëpp maa ngi leen di ñaan képp ku ci nekk mun nga ma oo ci 615 22 22 ñu xool nu ñuy taxawalee loo xam ne télévision boo xam ne wala loo xam ne kër Cheikh Ibrahim nga xam ne danay tasaaroo ci kaw àddina bi maa ngi koy ñaan képp koo xam ne ndaw nga rek dangaa liggéey ci loolu wala dangaa am xam-xam ci loolu mun nga maa oo ci 615 22 22 jërëjëf maa ngi nuyu sama doom euh, makki doomu Cheikh Mouhamed El Mahi mu nga xam ni Cheikh Mouhamed El moo ko yëkkati na ma kii sa doom la maa la ko may maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaare ci Soudan googu mu nekk ànd ak baayam di nuyu ñëpp di wax ne maa ngi jégalu ci kàddu yu xam ni xol bu fees la rek ab taalibe boo xam ni dafa toog gis ne eh, eh, lii Cheikh Ibrahima ñas liggéey du lu ndaw waaye ñu bugg ko nëbb ci Sénégal gi nga xam ni fii la juddoo fii la màggee fii la defee yëpp te sëñ Mahi moom ñu xam ko ci xam-xam xam ko ci lépp ñu bëgg koo nëbb loolu du ma neex dama koy wax mu leer nañ kon nag taalibe yi nañ dem ñu dem fekk ji li nga xam ne tey mooy suba teertu bi incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëfee Baye Niass yéenay liggéey fay du baay leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla